salaamaaleykum chers internautes salaamaaleykum yéen ñi safoo programme Seneweb TV seneweb.com tey ñu ngi fii Thiès seeti benn doomu Thiès bu tudd xaadim Rassoul joxeer nekk international sénégalais di football club bi ñu naan Alana Sport nekk sa Turquie tey nag dafa dajale xaritu professionnel am yi nekk Dakar ñu war a joué ak xaritu professionnel am yi dëkk Thiès moom waa Thiès la mais nag dañuy defaale benn portrait si moom ñu ñëw soxtaan ak Khadim Rassoul Joher salaamaaleykum. ça c'est l'international sénégalais. yëpp jàmm. Malaysia. sant delloo ziar. yaa ngi jàmm. sant bu baax ah tey dañ la seet si Thiès. waaw gis nañu bisimilah. <laughs> yaa ngi si jàmm. ma bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. ku baax maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp sama mbokku taalibe yi Baye Fall yi xam nga sama mbokku jullit yi. yéen màggal bisimilah. waaw ah, xam nga Mbassoum Joxeer lañ seet si tey bu bëggoon micro bi tey dafa dugg. fii ma siyaare. yëpp taw fee. waaw. ñaari jëmm kenn. ñaari jëmm kenn. moo ñu teeru de. gis nga maam Lamp ah, ñaari jëmm kenn xaadim sëñ Touba Cheikh Fall. ñaari jëmm kenn. waaw ñaari jëmm kenn. Ah, ah, gis nga. Massi Dagala gaa yaa ngi nii. Massi waaw. sama gaa yaa ngi nii. ñu ziar de xaadim la ah. si moom laa nekkoon Derkale maa moom ñoo dëkkandoo foofu ba ñu may ah. voyagé est-ce que ah mooy buuba ah, ah bu baax yaa ngi si jàpp baax a baax mën wax mooy mooy nit ku baax la quoi ku yaru ku respecté doomu aadama la te am na taalibe ndax tey jii li mu am tey jii nii ma xëj na dina bett ñu bëri mais man bettu ma ndax jàmbaar la ci li mu doon yëngu daal. ci benn anecdote moom <laughs> moom nag franchement moom doon woon doon ku doon histoire quoi. Uh-huh. dafa mos yaru nag depuis bi muy nekk booy ba léegi nii. Uh-huh. waaw leen daal moo xam naa ko mooy ku bëggoon caakiri la. Uh-huh. ak ay fonde moom. bëggoon na ko trop trop trop balaa muy tëdd bu ko lekkul du am jàmm. caakiri ak fonde moom. couchant bi moom bu ko dóorul du am jàmm. loolu daal naa ko ci moom quoi jaajëf. tey maa ngay topp. ah ma topp rek kii mooy. kii mooy Ibadeen Mbow. sama ami d'enfance. sama meilleur ami. maa moom ñaari jëm kenn la. <laughs> naka mu ci loo nekk. maam Bamba bismillah waaw. waaw ñu ngi ziar. ziar ak màggal. mais xaar dégg naa balaa saa da ngaa amoon bi loolu dafa dafa doy waar fi mu jugee dafa grave. néegam moom lañ ko doon denc. néegam ngeen doon dencee condamné fukki dërëm waaw néegam lañ mu yàgg loolu tamit ñu loolu entre copain la quoi ñu doon kaf mooy loolu kaf fooree bëggante moo ñu sut kii woon ñu def ko noonu du woon dara xam nga rek chaque jour dañ doon dajale foofu di ko def ñun ñëpp chaque jour ku nekk day ñëw indi mu doon mbégte suñu ñëpp xam nga doon xamoon nañ ne lii day am quoi suñu ñëpp parce que ñu doon ànd nekkoon ay joueur di football affaire yooyu mais moom yàlla dimbali ko xam nga rek ñu góorlu ba yegg si fii te ñu xamoon nañ ko dañ ko toppoon di ko ñaanal te yàlla def na xewal ba tey moo ngi nii affaire bi yaatu na quoi. waaw. gaa yaa ngi nii toog. sama gaa yaa ngi nii kii mooy Maguette Naar. Maguette Naar. Rasul sama tooma. kii sama mbër la Ngañ ba ki Ousmane Diop. kaay bisimilah topp ma yow. ma teg la ci code. Euh, kii mooy Bekaay. moo ma yoroon fii ma nekkee Thiès. yor ma petit catégorie. ba ni may voyager moom nag du suñu coach suñu papa la parce que dafa daan dafa daan def bu ñu entraîné ba pare xaalis bi mu am bokk ak ñun waaw kon loolu du affaire de coach événement bu jotee day ànd ñun ci marché bi dugal ñu prêt-à-porter jëndal ñu lépp luñ soxla kii mooy suñu père. waaw Khadim. Euh, tey moom kontaan naa quoi vraiment di sant yàlla bu baax a baax parce que lii tamit yombul daal boo am na loo xamante ni su la ko yàlla defalee danga koy sant parce que xale bu ñëw ci yow yaakaar la yàlla dimbali leen ba yaakaar bi ngeen amoon yéen ñaar ñëpp ñu dem ba rêve boobu yàlla mottali ko loolu sant yàlla la xaadim na moom ñëpp ko xam. ku woo xam ni nga woo xamee dafa dafa oyof dafa baax euh, xaadim du fàtte lu la neex nga wax ko mais du jàpp man moom boo nekkee xale boo tëlee nii dama lay neexal tànk yaa ngi si terrain bi amagoo dara dama lay neexal mais soo demee ba génn xam nga day metti parce que dootuma la may dootuma la may lu neex parce que li nga bëggoon am nga mais lu ma ko mënti waxit day wàcce boppam ci suuf wan ma ni carrément yaa ñu yoroon yaa ñu doon toppatoo li muy wax nii fu mu mënti nekk ci àdduna loolu lay wax fu mu mënti ne ñëpp ñëpp ñëpp a xam sama diggante ak xaadim te loolu vraiment loolu rek dafa dafa dafa neex daal dafa doy. lu bëri nag dañoo tàmm di wax ne. Mhm. joueurs mhm. mhm. ce que xaadim gore loolu moom loolu moom bu ñu koy wax dañuy tëb xaadim. dañuy tëb xaar dañ koy tëb. lu waaw parce que moom gisul ni moom footballeur la de xaarim jour taalibe la moom li mu li mu toujours boo xoolee boo ñëwee cees ñu mu daan àndal rek lay àndal ba léegi. ñu ma ko xamle woon depuis mu daan ànd ak ñoom ba léegi su ñëwee bu ñëw kër ga ñoom lay àndal su fu mu mënti nekk ñoom lay àndal te xam naa ne noonu la mel dakaar parce que booy yi muy àndal toujours ñoom lay àndal ba léegi. kon xaadim du du genre boobu tam man xëy na loolu mënul ñàkk mais bariwuma ay booy yu mel noonu parce que dinañ la jox cër dinañ la toppatoo mais kii moom su ma waxee yàlla rek moom damay toppatoo parce que eh, yëg-yëg dafa am solo te moom dafa am yëg-yëg man te yëg rek moo am solo ko dëgg yàlla regretté wu ma benn yoon bon man dama koy présenté gis nga kii tey mën naa ni euh, sama kër laa ko yore xaadim xam na ndax lii yàgg na moom xale la boo xamante ni souvent dama koy dama koy publier gars yi di ko gis yooyu mooy booy nga messi messi mooy nii <laughs> maa ko andil xaadim parce que dama ko andi fii pour mu xool pour mu xam ni li xaadim am ëllëg war na ko mën a am kii nii moo ngi Bastia di jeu foofu euh, frère la ci xaadim mën naa wax mais xaadim peut-être du ko xàmmee trop parce que bi mu fi jógee minime la comme kii la toll. tey moo ngi joué Bastia di ko ñaanal yàlla mu signé contrat professionnel bon ba tax na daal lii dafa rafet cest à lii muy def nii motiver dafay motiver képp koo xamante ni eh, entraîneur nga képp koo xamante ni parent nga képp koo xamante ni àndandoo nga soppe nga mais képp koo xamante ni tamit danga bëgg fubal lu mel ni da lay motiver parce que li muy def nii dafa am solo xaadim xoolu lu mu am lu mu ñàkk déedéet fii ku fi ñëw fi nga bokk. ni mu nekkee fii ba keroog muy ñibbi chaque jour kër gi day fees del ak nit ñan ñoo ñan ñoo fi nekk mooy ay xaritam ay aan bi jàmmam même ñoo xamante ni xamuñu ko woon sax bi mu doon fubal actuellement dañuy ñëw ci moom ñëpp la yemale. loolu dafa am solo di vraiment di remercier bu baax a baax Mbossé mooy magam bële toog parce que da cee jàpp da cee jàpp bu baax a baax euh, magu xaadim la mais dafa mel ni moom seexu xaadim lépp lu mu am am ci àdduna da ko jago da koy xaadim bu dul woon teg moom du baax mais nag eh, sa sa sa frère lépp loo def ci moom tamit ëllëg sa bopp nga ko defal pour man bon yaayam nag en même temps dañ koy dañ koy remercier bu baax a baax a baax parce que mère boo xamante ni man dañuy déggante téléphone bëgg dem lañ gisante bu ma xamee xaadim ba léegi bëgg démb laa gisanteeg yaayam te dañuy déggante dama dama dama ñëw trois fois may seet si yaayam si kër gi su ma ñëwee jiwal ak moom dem naa ba Dakar jiwal ak maire bi booy maire bi ñëw Thiès ma ma dem Dakar mais dafa am benn ñaan bu ma ñaanoon tamit dama ne ko woon xaadim bu may gis sa yaay yàlla na nekk yow nga nga nga nga ñëw sa kër ga ñu ànd ci sa 4-4 ñu ànd ma gis maire bi boobu xale bu ndaw la de yàlla loolu def bërki dem fu nekk jaanaaf pour gis maire mun ma ko gis keroog damay ñëw war a ñëw fii ma ne xaaral ma ma jël taxi ma ñëw fi ma toog moo mu ni ma maa ngi maa ngi maa ngi Sénélec xaaram foofu foofu la ñooy otoom andi ma fii présenté ba maire bi ça veut dire loolu rek dafa doy cest à nit nga ñaan dara yàlla nangu ko mu leer na lii yàlla nangu na ko loolu dafa am solo. te loolu lépp tey bu lu woon teg moom peut-être loolu du am parce que tey bu nekkoon di taxawaalu. wala ma koy defal jaaral fii mu jaar feneen wala ma koy wax xaarim defal li xaarim fekk naa ko si ay biir moom jaxaw ma saago ko ay ay temps nawetaan ma saawa ko wàcc taxi bi ma yéeg wàcc saawa ko yéegaat taxi bi dem presque jooy na foofu mais man li ma doon def xam naa ko parce que boobu noonu dafa toll ci digg carrière am te bugguma woon mu fooyee carrière am te gis naa ko heure boo xam ne ma romb ko ma ko kii après dafa woo yaayam yaa jine ko très bien woo ma ni ma Bécaye merci beaucoup bëri dem loolu moo mun ma loolu nga doon def tey moo indi Khadim fi mu toll kon dama koy remercier bu baax a baax parce que tey bu ma déggalul woon loolu du am vraiment di remercier coach am bële moom moo ko xamante ni moo ko démarré depuis xale bi muy toll nii parce que kii nii koo ko jàpp rek da nga kaa bëgg puisque yorul dara noonu la ñoom fi ñuy toll am na fu ñuy toll ku leen di téye da leen bëgg parce que ñoom kenn du leen soxla boobu moment boobu mais moment bii nag neex naa bëgg mais moment bi muy nekk xale bu ndaw euh, foofu noonu foofu la lépp te te te coach am bi foofu la ko foofu la ko foofu la ko la ko jàppee ba def ci moom loo xam bi mu ñëwee fii. daa ñëw rek yéeg kon kon petite catégorie dafa am solo ñu leen di fàttaliku bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy def formation yi loolu daal la amoon ci lu may wax vraiment gudd na mais xaadim su may wax ci moom mën naa dem ba suba. merci beaucoup vraiment. xaadim papa la oustaz la. ah waaw gis nga waaw. li adanaa la. waaw. bi avant ñuy monté la année bi ñuy monté. Mhm. dama leen wan sama coach bi kii mooy Denis Christian Mancabou. ñu <laughs> ah ñu ah, lay ziar bu baax a baax. maa ngi si jàmm bu baax. Khadim ban poste la njëkk a mu sa euh, bu nga xamee de. ah milieu défensif laa bu nga xamee. waaw ah. la rek nga def benn témoignage bu man Khadim moom ngay xam gën a ne xale ko mm-hmm. parce que mun naa wax ne mi ngi am ay douze ans quoi mais boobu mi ngi jëpp la. waaw ah, mais danaa ko romb si koñ bi muy joué boobu euh, sama ak ñoom seen famille jëppalandekoon bi nekk si koñ bi di foo xam nga yenn saa mu dem grand fi saa mu ñëwaat comme naa nga léegi bu ñu demee ba ay 2012 la ñëwaat fekk boobu xam naa gën a màgg ñu may boo ma yor mel équipe nawetaan lu bëre kat bokk na si gën a am mag équipe gën a mag suñu zone quoi léegi benn nijaayam agis na ma sama sama rakk bi xaadim laal bëgg indi mu joué fi mu ne ko waaw sa fay location sa indaale ko bu mu ñëwee premier jour entraînement yi def rek ma impressionné ma quoi moo tax ma mu ñëwee ba nekk professionnel bettu ma quoi. waaw parce que mu nga joué mu joué gis ka gis profil am gis mu fubalee xam naa ne vraiment boobu di réussir si football quoi. jërëjëf ban anecdote bu lu ma waxee moom sérité la mu sa xamee quoi franchement. waaw jërëjëf waaw. Euh, dafa mel ni soxna saa ngi nii. Ah! xale géwél bi. mu doog xale géwél bi. Ah. waaw. non yéen ñaar moom ah. yóbbu ma. noo ma eh. na yóbbu. taas ma waaw dafa dafa leer dafa leer dafa leer. waaw loolu la yàlla dogal. moom mu yóbbu la. mu yóbbu mu taas moom sama doom ndey la sama complice la waaw moom moom macha allah papam avant mu fi jógee dafa am ay kàddu yu ma dénk te di ñaan suñu boroom may sàmb kàddu yooyu ba keroog may sàngook suuf looloo waral sama diggante ak moom xale góor bi loo xam si Khadimou Rassoul Joher. waaw avant tout maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant tamit ñëpp. ci la sant yow mi di sama boroom kër muy ku xaadim ku baax ku neex a nekkal ku jullite ku responsable wax dëgg yàlla nit ku baax koo xam ne nekk ak moom sama avantage la parce que gis naa ci lépp nit ku baax daal loolu laa xam naa ko ci xaadim <laughs> dafay jar yarulu mais xam naa ne yaruwul fils waxal. fan ngeen gisante bu première gisante. non non bi la. moom sama sœur la doon àndal mboose. mu ñëw gaale mboose ñu ko kaam may na sa rakk bi si la ma xoolee jooy. yàlla def après. yàlla dogal ñu gëj a gisee. yàlla dogal ñu gëj a gisee mu am ci borom kër. Mhm. suñu borom xam nga nanguwul suñu borom boole wàññu kon maa moom du tey 2011 ba léegi dafa yàgg. yàlla na yàlla dolli sutura. amiin bu baaxe. amiin te yow lu mu nga nga téye nga wax ma. kii dama sonal de. kii may doom baajanam waaw koy jàpp kañ si lan nga koy jàppee kañ. Euh, kii nag moo ma sonal au moo may jàpp kañ ndax day jël yenn tur di ma ko wax loo du ma ko mën a wax. wala moo wala léegi <laughs> ma may la 500000. wala Fenerbahce. waxuma yooyu ñëw ko wax. na ko wax waaw damay bañ 500000 yàq ko quoi. mënu ko wax wax léegi. taaw njëkk a judd njëkk a baax. ani nga taaw njëkk a judd njëkk a baax a ngi nii kii mooy sama taawu yaay moom sama jumelle la mag moom dañoo yàgg lu mu am man la ko mës a jox yàgg investir si man nag équipement téléphone bu cher lu mu am jox ma ba tey yàlla ni waaw moom bul fi jooy de tey du bisu jooy nag xam nga boo ñëwee émission bi day yàqu de am man maay journaliste maay posé question loo xam si KM Joher ah allah Rasoul Joher sama petit frère la mu nekk xale bu baax ku am yar ku bëgg ay mbokkam parce que nit moom bu ñuy wax dafa baax na fekk mbokk yi wax ko moom dafa nekk sama féete mu nekk rakk boo xam ku sañoon bokk ak moom dundul professionnel li ma gën a marqué si moom mooy euh, sociale bi mu nekkee te boolew si wax musuma ko gis mu mer dañoo rusante sax man ak moom suñu wax sa bëriwul ndax daf maa bëgg ba gëmewu ma bu may wax yàlla rek moo tax may wax man tamit ma fonk lool waaw moom gu ASC wam bi sax ñi muy àndal sax ay fàllu ibadeer ñoom ñëpp amaana duñ ma wax mag sax da ngay wax ñu ne mboose mooy suñu yaay waaw dama koy ñaanal suñ borom sàmm ko lafal ko cat parce que nit moom toujours bu ñuy wax dafa baax te ay famille waxuñu ko amul sens li ma waxoon rek laay wax moom fi mu toll nii day am lu raw loolu ndax Baay Faal gi mu nekk di dund Xaadim Rasuul simplicité mu gën maa marqué si moom fi mu nekk nii sama kër ku fiy ñëw sax looy wax sax dañuy naan ani magu xaadim parce que xam nga lu tax moom simplicité am dafa dem ba daf maa dépassé man barke arxuraan da ngay ñëw dugg sax ba ci biir néegam man mosuma koo gis mu mer man mii di magam des fois damay def loo xam ne sax après man maa jël recul xam ne ndeysaan bëggul man ma mer moo tax xam nga xër ci moom dama ko bëgg ba ñoom ñii muy àndal sax xam nañ dama koy féete kanam féete ko ginnaaw parce que jamono bi léegi moo doy waar mais ñii moom ay ñi ngi fi gis ñëpp ay nitu démbam la xaadim amul nitu tey nitu démbam rek la am te lépp lu ma bokk ak moom rek li ñuy naan yàlla mooy boole am naa ay petite sœur ay jumelles yu topp si man am ay sœur samay doom baay mais yàlla dafa def moom suñ borom dafa maa nattu moom dama ko bëgg yàlla moo ma nattoo loolu te regretté wu ma ko manqué wu ma dara faalewu lu góor am man magam lu ne la may defal barke arxuraan lu ne manqué wu ma dara manqué wu ma dara dara dara dara wóor na yàlla dama koy ñaanal mu yokk suñ borom lafal ko cat yàlla sàmm ko guddal fanam loolu laa koy ñaanal ndax léegi moom nit kenn du ko mere ci alalam mënul nekk mënoo leen bokk suñ borom di ko dimbali bu ko neexoon li muy def ci man du ko def mais barke Serigne Saliou manqué wu ma dara barke arxuraan su ma feebaree balaa may wax sax mboo daf ma wax dama koy ñaanal yàlla lafal ko cat man du ma wax lu newul ci man barke arxuraan am na noo xam ne su ko meloon tey boo leen fi ñëwee du ma wax ak yéen damay tëju sama néeg ba ngeen dem billaahi wallaahi boo leen ma joxul woon caméra bi sax dama koy ñëw jël ci yéen wax parce que ñëpp bu ñu waxee te ñi bokk ak moom waxul amul sens dañuy naan ani ay sëram kon man foog ma taxaw wax ku yaru la ku baax la ku ma bëgg la moom man maay priorité am toujours dañuy ne Xaadim Mboose mooy yaayam fàttewul dara fàttewul démb lépp lu ma ko defal rek dama ko ko war a defal parce que sama rakk la man maay taaw taaw mooy yaay lii laa ko bëggaloon tey moom bu ma defalul dara sax nit ñi di sol mayom sax sama sag la waxuma laa manqué wu ma dara fii ku fi ñëw lii bu ko defee man maa tax na dëkku fi xaari dëkku fi du fi toog lu bari ku fi ñëw respecté ma jox ma cër kon na dama koy ñaanal suñ borom sàmm ko lafal ko cat waaw mu am ay club yu mag moom sama séddoo la waaw <laughs> ñaari seex yi nag ñoom ñu ngi Dakar ak famille Jower moom xam naa Pa Souley eh, Pa Omar. waaw léegi comme waaw on va maa ngi di nuyu ñëpp. di leen sant di leen gërëm. di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp ñun ñëpp. Khadim man fi bagaay commencé. man fala fa laay commencé parce que man bi ma koy xam booba ci Bécaye laa ko xamee mu nekk ko du football avenir ba mu toog mu toog ay ay ay ay yées gisatuma ko après nu mu ci gisewaat saalu sac bi ñu fay gisee muy entraîné def musculation man may préparer combat du waajal sama combat ñuy ñuy xalaatante maa ngi moom di sottante ay xalaat di consente ma ne ko sawaay mun naa ma ne ko football bi kenn moomu ko gëm sa bopp rek boo gëmee sa bopp mu ngi nii du ma bàyyi ma fen loolu laa ko wax gëmal sa bopp boo gëmee sa bopp ni mën nga cee am lu ne yaa may dégg mu nekk ku gëm boppam nag ku am fulla ci boppam am fay fayda ci boppam man li tax mu gën maa neex mooy acte bi muy def parce que moom rek du fi sóor man du ma raayal kenn ginnaawam wax naa ko bër ki dem ci téléphone de heure bu jógee voyage bu ñëwee day war otoom kenn ku ci nekk day dawal otoom ba sa kër ñëw nuyu la saafoon yow def li ko war ca am na ñoo xamante ni duñ ci jaar fekku ko ci tëjuwul boddiwul kenn dàqul kenn yaa ma dégg man loolu ma loolu laa ko gën a bëggee ku baax la ku yaru la ca fàttewul démb ca mën na nitu démbam li magam ji wax rek laay wax amul nitu tey fii ñi fi nekk ñëpp ay nitu démbam lañ yaa ma dégg man ba ma ko xamee ba tey c'est la euh, première fois maa ngi doo ñëw këram tey yaa ma dégg ca fu ne dañ fa daan daje ma koy gëmloo mu ngi nii du ma bàyyi ma fenn jàppal boo jàppee dina baax lii nag laa ko bëggaloon tey di ko ñaanal yàlla nag ci barkeb turandoom mu am club yu mag a mag a mag a mag ban koy dégg fu fu dégg Mirsi rek ñu dégg ko fa fu ko raw ci barkeb Sëñ Tuubaa turandoom kontaan naa ci yow doom ndey kontaan yàlla na yàlla defal jàmm. kii mooy waaw. yàgg loolu yàgg na. kii kii day kenn si man. ndax man yàlla def na ni billaahi duma dem fenn man tëgg laa xam kese mais moom bu ñëwee barki Serigne Touba Mbacke foo jaar ma ñëw këram ndax moom moo ñu ko ji démb dama toog dama dama dama toog ñu jëw ko jëw boo xam ne barki arxuraanu karim man daf ma neex man ndax boo man la siggil ma toog ñu wax ci moom lu rafet barki sëriñ Touba te kii sa man dama daan dama daan def su may jàngi dajeeg mboose mboose naan xaadim Ah, sa seex bi am na koy nduróol am na koy ndirool ba benn jour ñu gisante noonu lañ xamante mais nag wax na leen daa mën a fecc programme buñ mës a tëgg toj na ko toj ko de <laughs> baa ma jéggal ko baa ma jéggal ko alors euh, tey ñu nar a yendu ak yow mhm. on passer la journée avec vous sànq présenté nga ñu famille bi présenté nga ñu ñu bëri léegi dañuy dañ lay bàyyi soit nga ñu noppalu xaar añ xaar gaay xaar gaay xaar gaay agsi mhm. sa gan yi mhm. ay par exemple yan nit ñoo fi nar a ñëw tey football si ak waa Thiès sama mbokk joueur fi ñëw waa professionnel professionnel yi nekk Dakar contre waa Thiès contre waa Thiès international mhm. kon ñu bàyyi la nga relax ñu xaar li nga xam ne mooy arrivé sa après ñu enchaîner dem esat baax na jërëjëf kon gars yi ñu ñoo leen di daje si kanam tuuti wala daa am loo bëgg da am ko bëgg mu wax non caatu xale yi kaay caatu xale yi ah caatu caatu gi daw de kii mooy caatu xale yi de mi ngi daw caatoo caat. caat kaa yu sama kon. ah sama niroo waale. sa niroo waale waaw kii mooy Diarra Joher. Diarra Joher maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. alors léegi Diarra Joher. Mhm. yow bu la xaadim ne boo gisee numéro xaadim sonné sa téléphone da ngay gaaw a décroché wala da nga naan naa ko si kanam. damay gaaw a décroché kay. léegi lu ngay gaaw a décroché. parce que sama mag la dama ko bëgg te dafa baax. mais am na njëriñ. waaw kon baax na. Mhm. ban témoignage nga mën a def sama. sama mag xam naa ne nit ku baax la wàccee na boppam bëgg na ñëpp. day taxaw famille wam bàyyiwul kenn ñëpp sans exception moom yàlla na ko yàlla fay rek ñu dem bañ koy dégg Allemagne ak fépp incha allah. amiin jërëjëf merci Diarra Joher donc. Xaadim ñu bàyyi la nga relax tuuti ñu ñu ñu ñu xaar sa gan yi ñu ñëw après ñu enchaîner dem stade une journée avec Khadim Rassoul Joher Khadim Rassoul Joher comme vous l'avez jamais vu dégg ngeen témoignage yi gën ngeen xam plus l'humain que le joueur après nag stade ñu xool le joueur ndax transversal mi ngi ak diagonal mi fi ba léegi. loolu léppay am. Ah. waaw. kon baax na jërëjëf. mais xaaral dafa mel ni yow rarement ngay musique wala doo déglu musique. waaw man ah, dinaa déglu musique mais rarement lay déglu musique quoi. rarement ngay déglu musique. ay sikar laa gën a déglu quoi. ay sikar waaw léegi may ma sikar yow. Baye Darou la. waaw ma. nga tegal ma sikar de <laughs> yow nga sikar dama bëgg yow Xaadim Rasul joxeer. Hmm. nga sikar. ah ma déglu voix bi. ilaa ilaa. xaaral xaaral. léegi Ahmadu Mustafa Rasulullah ilaha ilah la ilal amdi Mustafa Muhammadu Mustafa Rasulullah ay bàyyi daaru lañ nag mais mais mais sa relation ak borom daaru hmm. laa bëggoon nga wax ma si tuuti. maam Thierno. maam Thierno Birahim borom Daaru. waaw maam sa relation ak waaw maam moom dama ko yàgg soob depuis ba may nekk tout tànk jamono may gisee kade laa njëkk a def cant Derklé muy 2007 ma invité ko ma dem ma dem gaar këram bi nekk IPG woo ko si cant yi mu ñëw moo waral daaw ma dem ba daaru ba Sikori fekk ko fa waat ko cant yooyu nga xam ne man maa ko indi woon ci koñ bi ma waat ko mu ñëwaat ci koñ bi ren dama ko toxal indi ko Thiès suba la samedi bi incha allah ma ciy woo mbokk Baye Daaru yëpp kon loolu loolu lu am solo mais mais mais lan moo gën a frappé si borom daaru maam mhm. maam yërmande bi ak modeste bi moom day saafanteeg taalibe yi jox leen seen wàccuwaay doxewul doomu soxna laa maanaam noo ñëwee rek noonu la lay accueillir teg la ci wetam foo ko gis gis gis gis bëñam yi bi rek ngay gis mbégte bi waaw moom macha allah. noo gisee Thiès. waa Thiès fii benn dëkk ñaari gaar fii sama maam sama maam fii la féete sama yaay waa Thiès la. moo waral ma ma defaral ko diwaan bi comme ça moom mu féete Thiès man nag dakaar ak Thiès laa bokk pigeon voyageur la Bamba partout tey maa ngi fii suba maa ngi fee maa ngi Dakar. mooy est-ce que doo def Dakar Dakar Thiès trois <laughs> waaw nii laay def damay damay ñëw Dakar nii vite fait retourné waat noonu laay lay yoon bi quoi jàppan. ren cant la woon ren nga indi ko waaw. xajatul Dakar quoi moo tax ren ma ni kon ça fait sept ngi nii maa ngi koy def bàyyil ma indi ko fii Thiès boole leen ci parce que ñaar ñaar dëkk ñaar kii yëpp si euh, ñoo bokk ci man moo tax ren ma partage leen quoi indi ko fii. match de gala bi lan nga si jublu carrément. match de gala bi. Mhm. waaw kon man li ma lay wax rek Bamba partout la sama mbokk joueurs yi dama am ay copains yu nekk Dakar ñoo xam ne international la ñoo géwandoo ma am ko fii aussi Thiès ma ñëw vacance ma ni pourquoi pas ma def benn match de gala international yi nekk Dakar contre waa ñu nekk Thiès moo waral loolu parce que ñun ñëpp benn lañ. jaajëf la ñu waaw. xoolal maam Baba Thiam a ngi nii. Paalin Ndiaye ngi nii. léegi loo si Paalin Ndiaye. sëñ bi mag laa ngi nii. kii dafa xewle. Daara Jolof tijji fa. daa xewle centre. non waroon mais Pape Sane waxuma synthétique. incha allah ay professionnels yu mag a mag a maga a mag a mag. ñoo fay génne tuddee stade def lu am solo nag di référence di ñaan yàlla dimbali ñu ba ñu def ni moom parce que suñu royukaay la. Paalum euh, looy wax tamit si Xaadim Joxe. <laughs> non mais kii moom moo baax rek Xaadim moom Xaadimu ñëpp la. xam nga man euh, bu ma woowee wax ma ko euh, dama ne ko déjà su ma ko yëgul woon sax lii. déggee ko ci mbedd bi même su su ma ko waxul damay taal su ma te ñëw rawatina nag bu ma woowee ñëw xam nga donte mi ngi naan ma xam naa ne temps bi xat na bul fo ma ne ko waaye yow saa waay lu ma jàppoon dama koy bàyyi ñëw ndaxte moom moo ko ji ñi nit yi quoi nit ku baax a baax a baax a baax a baax mooy xaadim borom baax dëgg dëgg dëgg waaw Baye daal moom Baye la ñu koy ñaanal jàmm rek. Eh, mag baa ngi ne ci biir. Papis xarañ loo. non mais Bamba ñu ngi lay siyaar xam nga kii moom. loo wax ci moom rek am na lu des quoi a nga moom suñu waay la suñu mbokku taalibe la xam nga di ko ñaanal yàlla lii nii mu dem ba nekk ay édition édition ba ñu koy defee ci centre boo xamante ne xam nga moom moo ko créé fii biir Thiès parce que am na yéen bi te yàlla na yàlla mootali lépp incha allah jot jot ko wéy wéy jotu la nee naa nga yow mu dala la jot bi jotu la yor naa yor naa 5 XL la 5 jot na la léegi may bi jotuma xoolal génn may bi jotuma ñaar la Cheikhou maillot bi jotuma xoolal. waaw mais il faut biir bi yaa ngi wàññi biir bi foog nga dem Saalum. mais naka moom. yoo màgg yi mais la ko teel a ñëw nag ah. xaadim kii kii sama rak la kii sama sama lépp la kii moom maax maax maax bugg maa xa bëgg sama bopp quoi def ko sama rak mu def ma magam xam nga mu yéene ma lu bëri ma yéene ko lu bëri donc yaakaar naa ni moom ah yàlla rek laa koy laa bàyyi di ko ñaanal yàlla rek waaw ñun fu mu nekk nii mu teg fa tànkam xam nga mu gën a yokku waaw yàlla sutaa ko bu baax waa dafa ko tawféex. léegi maa yow kañ la ñuy kii. non lan la ñuy def lan. entretien non il faut ma laaj ñaari soxna yi ba pare. <laughs> jaajëf. waaye yàlla yàlla gudd sa fan xoolal tey bis la match bi neex gars yi kontaan Thiès kontaan jeune code Thiès yëpp di photo ñu mu ko mosoon a bëgg a gis. bët ak bët ñu dox leen opportunité bi tey alors ban mbégte nga am fi mu ne nii. kontaan ak mbégte rek xam nga amu amu mënuma sax wax ah, parce que nga woote ñu wisi la nit ki amul lu dul bésam te kon ni ma la ko waxee rek ñun ñëpp ay frère lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baa ñoo bokk milieu bi xam nga. Euh, di leen ñaanal suñu borom yokk leen may leen ay contrat saan baawaan ñi nga xam ni dañuy yëngu ci football te bëgg si réussir yàlla nag suñu borom defal dama am mbégte moo tax mënu ma wax lu bëri kontaan naa trop. jaajëf léegi ana lan ngay tëjee te ñoo yendoo nga gis nga woote mun neex la alors lan ngay tëjee. waaw dama lay jaajëfal léegi yow man ma dama dama lay jaajëfal jaajëfal waa Sénégal yëpp xam nga di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi kon ni mu ko waxee woon dañoo nekk si waa yoo xam ne dëkk bi dafa yëngu bu ñu ñaan lu dul jàmm dellu si réew mi parce que ay ay kilifa ñoo tëdd si réew mi te ñoo fi ñaan. yàlla na jàmm yàgg jërëjëf.